incertaine oh, ouais, incertaine voilà euh, rapidement rek sa réaction ci premier point bi entre l'interdiction et justement 2023 une année sous sous tension politique. merci merci euh, merci. Mhm. Mhm. wax ko ci wolof perplexe jaaxle ah. waaw waaw am nga jaaxle quoi dëgg dëgg la dëgg la xam nga euh, bu ñu fàttee bu ñu fàtte mukk nii. lii ñuy wax yëpp am na fi amaat fi amaat fi man Mamadou Diop sama cousin la yaayam sama tante la en 2011 ñu ngi wax léegi arrondissement yi ngi wax nii am na seede Bokar Farba mais biir France bu may seedaan Lamine Doy sama jëwriñ la te man j'étais très lié à Djibo Leyti Ka te kon xarit dama ko yàlla yërëm je je je dis à mes amis là ne leen dem Linguère ma seeti ji bokk dafa am lu ma koy wax sax xam lan laa ko doon wax président vous êtes ministre d'État il faut dire au président Wade gars yi place de l'indépendance lañ bëgg a dem manifester nu ubbi palais ñu ñëw si ëtt bi wax lu leen neex génn dem wallahi taalaahi mu ngi si dëgg maa ngi si fen loolu laa gëm te si loolu laa nekk léegi année bi. année bu am solo wax naa léegi j'ai fait un ouvrage sur le leadership et si on parlait de chef Sénégal ñëpp xam nañ ni le pour sénégalais mën na folli mais du fal du fal dañuy folli et bu ñu falee après dabuwaat ne que ñu faloon baaxul après jéema a folliwaat man je veux que cette année là soit une année de proposition sur les questions de l'heure sur les différentes transitions écologiques numériques l'emploi le pétrole le le yooyu noonu ci plateau yi ñu fiy wax yooyu qu'on ne parle plus de fichier électoral parce que fa lañ jëm dans quelques mois buy def révision bi bu commission nationale dialogue politique encore on va aller vers ça malheureusement loolu man moo ma moo a jaaxal on va encore encore parce que yaa ngi wax expérience moi fondateur du CPC membre fondateur dama waxatul ci politique moi j'étais avec Niass Tanor Dansokho Djiboka dans le salon de Dansokho pandant quatre ans. mais léegi bàyyi nga pour leeral quoi. donc dama assi suspendre lépp maa ngi ci yeneen. parce que en réalité dans ce pays là ku nekk sa bopp rek ñi ci pouvoir bi seen bopp ñi si opposition bi seen bopp dëggantaan en observant parce que nag li ma fekkee bari na. wallaay taalaay li ma fekkee on ne parle plus de CENI dans ce pays pourquoi. fekkee naa audience bi waat de recevoir Niass Tanor Dansokho y avait un ministre de la République xam nga bi ñuy jógee kër Dansokho lu ñu wax parce que avant ça vous étiez là dans la presse on a dit partout urbi et orbi qu'on réclamait la CENI xam nga bi ñuy quitté di dem lu ñu wax si on a l'ONEL renforcé c'est bon. Mmh. <laughs> Ouais. pour dire politique mu mel quoi. bi ñëwee toog président Wade dans sa tactique et sa sagesse il nous dit propose la Sénat je vous dañoo xoolante archive yi ñu ngi fi ah dañoo xoolante ne ko ok politique du du xiiroo ŋaayoo du rayante. du rayante. c'est du dafa am yoo xamante affaire la quoi dëgg-dëgg. dëgg la loolu laa bëgg a wax quoi la. li ñu def fii affaire gentleman il faut pas formater les gens vers la violence. bi xeex bi saagante bi. la euh, ma man maay wax. s'il vous plaît du wax man je me mets en opposition sa simple expression. la violence est aussi monsieur le ministre. respectez monsieur le ministre yow ngi wax. may ma rek ma dugg dugg naa bi ngeen di wax boobu ba waxul. taggul kenn mais may leen ko mu wax ba pare après yéen ñaar je vais vous donner deux minutes yoo xam ne yéenay conclure chapitre bi on aller à autre chose bu boobaa seen deux minutes ngeen wax lu leen neex. je veux juste dire que la dëgg-dëgg affaire gentleman lu ne xew na si dëkk bi ah. lu ne xew na fi nag wallahi taal après dañuy mujj a toog teg caayin wala naan café waxtaan avance y a pas mal de problème de justice nit nekk prison ñu waxtaan génne ko si pays réew mi pour jàmm. Bilal Soubou c'est mon meilleur ami il ne woon manager u Bamba ji Fall li ma di seen yaa yéen xamu leen kaw yàlla boo leen ko xam le kaw le kaw bu amee kenn si ñun ñii bokkatu kenn si ñun dañ ñun ñëpp dañuy on se terre quelque part du ñu bouger tele du dox dara du dox opposant opposition pouvoir ñëpp tout le monde dort tout le monde dedans xam nga ñuy génne dañuy libérer prisonniers yi libérer band yi nekk si ruq yi génne leen ils vont violenter et violer waa léegi sëñ coro Thioro Bassirou Mbacké bés bu jot dafa may fàttali la nécessité de pacifier l'espace public te loolu nag problème de responsabilité individuelle la responsabilité politique la à tous les niveaux que ça soit au niveau du pouvoir comme au niveau de l'opposition ce pays-là est un beau pays qui a d'énormes potentialités ce que je demande à la classe politique de façon globale à tous les niveaux xam nga présidentielle yi passé man maa provoqué une question je dis à certains de mes amis journalistes j'ai rien entendu sur la décentralisation au niveau des cinq candidats wallahi quand la question a été posée le lendemain j'ai entendu cinq propositions aussi doy waar les unes que les autres c'est que y avait pas de construction autour de ça <laughs> aucune construction on va vers sur le pétrole sur le les mines sur euh, l'éducation sur le, le numérique moi j'attends la classe politique j'attends la presse parce qu'elle a une responsabilité à ce niveau muy interpeller la classe politique. mais mais ce que tu es en de dire là. ma bàyyi bàyyi ma daaneel après ma jox la. à mon avis tu es sur l'idéal. waaw man après après naa la jox que. allez-y tu es un idéaliste. un idéaliste kii rêve monts et merveilles. c'est-à-dire dans un état parfait. dans un pays parfait. loolu mënul nekk. attends attends waaw dama la après ma ma mais ce qu'on vit tey ce qu'on vit. loolu la c'est pas l'idéalisme. temps de parole la de. toi tu as ta mais, mais le, bah... politique a sa préoccupation. maa ngi ñëw ma si politique xam naa. le politique le politique il sonde l'opinion il y a quelque chose qui plaît forcément à l'opinion ce qui plaît à l'opinion c'est pas c'est pas forcément l'or et le pétrole et le diamant aujourd'hui il faut que ngeen xam ni il y a une mutation dans la construction même du militant dafa am dafa am un de militant qu'on construit on ne construit plus mm. un militant sur la base de de valeur on construit un militant sur la base effectivement de xarab. est-ce que tu comprends li ma li ma. boo ga delloo ma kon waaw. Ah, ah, non boo ah, paree rek man je termine je termine rapidement. parce que. Euh, c'est pas de l'idéalisme. xam nga mais ñun am nañ ay dëkk suñuy ndaw lañ. y a pas y a pas du lu impossible ma malal je mm. je suis désolé problème de formation politique ngay posé. Mm. problème de man ñun dañ doon ànd ak Fada. Fada muy bind si miir di joxe idée ñu bind si miir joxe idée contraire. Mm-hmm. y avait pas de violence nuitamment les Baba Ndiaye njaay Ndiaye et cetera. suñu grand yi. Mm-hmm. donc il faut former les mais mm-hmm. maintenant man li ma bëgg wax. quel que soit Alpha parce que attente sénégalais dafa bëri man je fais des mission de formation à travers le pays. doo leen dans les collectivité territoriales. la pauvreté elle est là. les actes am na ñoom te ba tey pour ñu pour ñu euh, mucc. mais si ay charrette lañ yow teg am na dëkk yoo xam ndox amu foo ndox mu neex et la classe politique quand on bien l'oreille mais dégguñu leen de façon permanente sur ces question c'est de façon occasionnelle lañ siy wax loolu tamit dëgg la ma la dëgg la ah dëgg de nos hommes politiques c'est tout ce qui est lié la matière électorale à la question partisane c'est malheureusement ça qui fait que la plupart des gens parce que ma. mais Al Amin Al Amin pardon rek Al Amin. demoon na ba wax ni ñi war a wax. bu bu fekkee ku nekk dafa war a wax. ñi war a wax dëgg dañuy noppi. la preuve tey jii dans ce pays là ñu bëri man j'ai rencontré le doyen Dabi Diagne au Kenya toog waxtaan. mais aussi triste grand monsieur là perçoit. dootul politique de décentralisation bu ñu yemee si loo loo loolu rek dinañ dinañ si ñëwaat moom benn exemple la. Hmm. am na ñeneen si yeneen domaine dañoo mujj noppi di xool. parce que gisatuñu. seen bopp ci li gisatuñu li xew fii. ok seen bopp et eh, eh, c'est à tous les niveaux. Hmm. benn waay dafa mës a wax ni. un roi dafa recruter woon benn nit xam nga lu ne woon liggéeyam Charles. Hmm. bu doxee 10 mètres mu dab ko ñëw si mbagg li ne ko bul fàtte ni nit nga taxaw bàyyi ko mu continuer waat mbooloo mi topp ko bu doxaatee dix mètres mu dabaat ko ne ko bul fàtte nit nga ceux qui président am nañ responsabilité wax ko dëgg nguur na buur na kenn ko dëgg si mbedd ci bokka en 23 juin bi ñuy wax nii le conseil des ministres réuni le 16 on l'oublie le 16 président proposé li muy proposé président Wade ji boppam m'appelle j'étais avec Diassé mu ngi may déglu dans son biro ne ma seen ñaa y une proposition du président dama bëgg nga wax ma sa xalaat man ne ko wax ma sa xalaat ba pare parce que yow boroom xam-xam nga mu ne ma déedéet je vous ai appelé pour vous demander votre avis man li may wax yëpp day am témoin mu expliqué ma mu wax ko sama xalaat ni ko baaxul mu wax ma moom it ne ma moom ak Kalidou Diallo ñoo bañ ci conseil des ministres ñoom ñaar rek ñoo bañoon ñoo bañ lan. lii président Wade proposé woon parce que yooyu ay débat la au sein du conseil des ministres. Mm-hmm. ñoom ñaar rek ñoo bañoon. Mm-hmm. bi ñu demee ba coow li bari. man je devais accompagner Bamba Ji Fall ma bàyyi laa sow bu muy dégg morso bu ñuy woowee borom ngàcc dañu waroon yóbbul borom ngàcc yàlla na ko yàlla yërëm mu aal ma kat kaata ma ànd seeg waa Bamba Ji Fall. Sidi Diop mu may dégg ak waa Bamba Ji Fall dañu mujjee ne comme que dafa am tension te nañ ko bàyyi ñu toog à une certaine heure ne ma Djiba Kâ a quitté gouvernement ñibbi na la presse en parle ma ko c'est pas possible mais mayoo ma renseigné j'appelle mon je prends mon téléphone j'appelle Djiba Kâ mu ngi si dëgg maa ngi si fa man président qu'est-ce qui se passe mu ne ma le texte sera retiré tout suite ku nekk Sénégal di nga am wax looy def te nit ñu tax duñ ko yëg du politique yi rek ñoo fi ne ni def instant woowu ay kilifa diini ñu ngi wax. la médiation. mais am na am na ñeneen ñuy wax. ku nekk am nga si wàll. mais nag c'est à des niveaux. waaw à des niveau différents mais loolu ñu ñu information bi génn bañ na démissionné na. ndax instant boobu man buñ ma laajul woon. wala ñu laaj kenn ku ko jege ku xamul mu ne waaw mën nañ génne information bi te loolu amul amul amul woon dama bëgg rek recentrer. wax politique yi. presse bi surtout ah presse bi surtout que année deux mille vingt trois bii ñu tëb mël te question bi loolooy pertinence bi on risque d'avoir une année d'inactivisme économique on risque d'avoir d'inactivisme scolaire et académique on risque d'avoir un pays sur place loolu mooy li nga xamante ni. c'est des milliards qu'on perd. mais loolu nag mais mais mais de balaa ngaa nekk bi nga xamante dafa. ak opposition ñoo ci am responsabilité. bu ko amee bu xoolee ba loolu ñu perte ko ay milliards am na responsable. allez opposition yi bu ko yàqee bu ñëwee day fekk. allez c'est clair léegi en deux minutes. xoolal non non une minute.